muy ndaw lu ràññeeku lool ci Touba HLM 2 mi ngi wuyoo ci turu Xaadim ga moom sax moo taxawal kuréel gi nuy wax association ànd suqali sunu gox. ay ndaw yoo xam ni liggéey sëñ Touba moo ñu ci dëkkam bii li nga xam daal moo la fi bëgg pour ñu ñu moom di ko defal. Mhm. loolu moo tax moo sabab la association bi. Mhm. waaw jàpp suñu daal ci dëkkam bi li nga xam bëgg na ko. Mhm. moo moo ko tax a jóg waaye nag ñëpp sax ajjuma dinañ génn ànd ak ñi nga xam ñoo fi nekk. pour bale koñ fépp pour mbalit nekk danañ génnee pour defar bi ñu boolee seeni doole ci njiital Xaadim Gajaga ñu tàmbalee ko nag ci lu jëm ci wàllum set setal gox bile waaye tamit taxawu oto mbalit bi ngir lépp loo xam ne jëm na ci jëlu mbalit mi file ci gox bii di Touba HLM gën a jàppandi ah, koñ bi im ne ay ay bildee yoo xam ne ak ay ato mhm. da ah, defar nañ ko mhm. mais bi ko ñu ñëmuñ dugg si kër mhm. pour waxtaan ak nit ñi di leen am nañ yoo ci koñ bi bu kenn tuur ah, bu kenn tuur mbalit si si mbedd yeeg yooyu mm-hmm. te faaw ngay communiquer ak nit ñi mm-hmm. mais ñoom tamit ñu ñu jàppalante jàpp na ngi jàpp sax ajuma mm-hmm. ñu jotee seen i saako su heure bu pour sax ajuma pour ñu koo génneeg yooyu ndaw lii di Khadim Gadiaga mi ngi koy amal ànd kooki ndaw yi nekk ci gox bilee askan wi fi yeewoo rafet lu baax joo jëlëjëf lii mu saam ci koñ bi mu indil ñu ko kon nag dañ ko ci sant bu baax a baax te di ko ñaanal yàlla kàttanal liggéey bi te dëgëral koñ bi danaan buñ daan bale ba pare dañuy radu di di di taal ak nanu ñu dugg ñu sonn lool buñ ba am oto mbalit fii ñëw di jël mbalit mi di yóbbu mm-hmm. dañ sant bu baax a baax mm-hmm. xale yi mën nañoo jógoon jaar si beneen yoon bu bi mm-hmm. kon ñoom sant yàlla di gërëm beneen yàlla dimbalee ñuy mën a jaar si yoon bi rafet bii kon ñoom sant bu baax a baax ndax ay ndaw lañu waaye am nañ jom nañ pasteef bëgg nañoo soxali kon bi wax dëgg yàlla rafet lool sedd suñu xol te ni mu rafetee ak ni mu sedde suñu xol yal na seen xol sedde yal na leen yàlla jàppale yëggale leen ba ngeen yëgg fa ngeen jëm moom kay moom yal na ko yàlla fa teg te yàlla may ko gudd fan ko wér la mbooleem yàlla eggalee mag ñi ba ci chef de quartier bi itam daanaka kàddu gi benn la waa kër léegi la ñu jël saako yi fi nekk yëpp di kon loola képp koo xam ne yaa koy def ah bi ni amee nañ ko waaye pay yàlla gi moo ëpp doole lépp waaw mm-hmm. waaw moom sant yàlla moom ma sant ba jumlaa koy def ndax mm-hmm. mbalit ku ne xam moom moom moom ak taqa rek lay def mm-hmm. ah, bu yàlla dogalee nag dégg nga mën nga am koo nga mën boo loo bale dajale ko bu ñëwee fopp ko tuuti ci àll ba ah kon day doog doole sant yàlla Khadim nekk ndaw bu am engagement waaye tamit ànd koog mbooloo seen xemmemteef moo di fexe nag ba gox bile lépp loo xam ne woon na ko tañ man ci dara ngir ñu dox ci di ay jéego yoo xam ne ñu bari ñi ngi koy rafetlu fii ci Touba HLM